thank you وصليا يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدا المختار في الخدم وصليا يا إلهي وجزينا أبدا مصطفى أن محمدا المختار في القمام مدن ليلى العروبة لا در فيه رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم وصليا يا إلهي وجزينا مصطفى عنا محمدا المختار في سيد الحاج مالك نتنبه أن نور الختم ليلكم قد حل في خيمة من أطهار الخيام وصليا يا إلهي وجزي ما مرني عنا محمدا المختار في القدم صباء عاتير بخير خير البخور وأفكار riisu sajadaati takriman ala alxumami wa salliyan ya ilaah هيب جزينا أبدا أن محمدا المختار في الممدن أن محمدا المختار في الخدم أن محمدا المختار في الخدم ah fa tabarakallahu bu ngeen déggee am ndax yooyu seen xel dem ci bis bu rëy boobu di waaj aksi fa tabarakallahu ban bis la mooy bisu alquran bu ne alquran nag mooy bisu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan moo ko woote fa tabarakallahu ko kenn du ko présenté ci Sénégal surtout nag ndakaaru ak Medina nag environ muy kan Serigne Jibril Diop alquran moo woote bis boobu nag fa tabarakallahu nekk dixième édition ànd koog waa Ndakaaru ànd koog waa Médina fa tabarakallahu ànd koog waa rue 31 angle 6 kañ lay doon le 25 février samedi incha allahu taala à partir de 17 kon nag ñu ngi ciy woo nag mboolem Sénégal gépp di ci woo mboolem Ndakaaru gépp di ci woo nag fa tabarakallahu mboolem nag sunu xalif généraux yëpp di nuyu di leen di ci nuyu bu baax Serigne Babacar Sy Mansour di nuyu bu baax sunu maam Thierno Bachir Tall di nuyu bu baax sunu maam Serigne Mountakha Mbacké di nuyu bu baax Thierno Madani Tall di nuyu bu baax sunu maam Mouhamadul Mahi Niass di nuyu Sénégal gépp fa tabaarakallaahu Serigne Djibril Diop bàyyiwul kenn mu ngi woo ñëpp di nuyu bu baax ak di woo nag fa tabaarakallaahu ki nga xam ni sunu borom mu la dénk nag Medina muy alxaaji Baba Fall ñu ngi ko ciy woo ci ci ci programme bi fa tabaarakallaahu di ci woo son excellence monsieur maki Sall fa tabaarakallaahu di ci woo Sénégal gépp bàyyiwul kenn waaye nag bu ne Medina ni rue 31 te woowuñu suñu bàyyi bu baax boobu fa tabaarakallaahu di Serigne Cheikh Tidiane euh, Seck fa tabaarakallaahu nag kooku woote ba day des kon ñu ngi ciy wooyit suñu euh, nijaay jooju di suñu baay bu baax boobu di Cheikh Tidiane Seck di ñaan yàlla yàlla dolli ko taxaw bi jaay sallallaahu alayhi wa sallam kon daal bis baa ngi noonu ñu ngi ci woo ñëpp kan moo koy taxawee Serigne Jibril Diop moo koy waxtaan incha allahu taala moo ko woote moo koy waxtaan ku ñëw di nga dégg yàlla di nga dégg alquran di nga dégg Seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu kan moo koy animé seen mbokk Xasan Dabaax feggoo ca kan doomu ndayam soppeem alxaaji Malick Maodo Ndiaye kon bis baa ngi noonu ba kenn tarde wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaaril aziim subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun ala al mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin amiin